Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal suñu boroom mu yàggal ko fi lool te defal ko wér te mottali mbooleem naalam yi yi nga xam ne naalal na ko Cheikhul Khadim te ànd ko mboolem rakkam yi ak taalibe yi yëpp ginnaaw nuyoo boobu ñoo ngi ci tegit ki nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh bu Mbacké muy Cheikh Ahmadul Khadim Mbacké ñu gën koo xam Serigne Cheikh Say mi nekk ci bopp jabootu Serigne Souhaïbou ak mboolem njabootu sëriñ Serigne Souhaïbou yëpp waaye di nuyu sëñ Mahmoudan Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mu ngi ci jataay bi di kilifa ak jataay bi waaye mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee ko sëriñ Amdi Muudu Mbenn Fall mi nga xam ne moo ne ci bopp njabootu Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu sëriñ Muudu Aminata Fall tàmbalee ko sëñ Fallou Fall ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mi nga xam ne mooy jëwriñam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal bu baax a baax ñoo ngi fii ci ëttu kenn ci njabootu Serigne Souhaïbou muy soxna moomi daam bintu Cheikh Souhaïbou Mbacké ànd koog daayira bi nga xam ne ñooy turandooyu Serigne Souhaïbou yi muy jës bul xulub ci jëwriñu sëriñ Abou Darou Salaam waaye it sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Chouaib mi nga xam ne mboolem yëngu-yëngu yu màggal gi ak lu ci aju yëpp mooy jëwriñ ji di doomi sëriñ Chouaib kon ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di ubbi kàddu yi ci seen digal di ñaan jataay bi yàlla gërëm ginnaaw nuyoo boobu ak ziyaar boobu niñ ko waxewoon rek turandooyu sëriñ Chouaib yi ñoo woote jataay bii nii ci ëttu kenn ci njabootu Serigne Souhaïbou fas yéene fee amal ab waxtaan wu mag wu am solo woo xam ne nii day jëm ci yar ak jàng maanaam yar ak jàng ci yoonu murit waaye it rawatina Serigne Souhaïbou Mbacké mi nga xam ne fu tuddee tuddeew turam ñëpp xam nañ ko ci yar ak jàngale ba néewaana sax ngay gis benn daara ci daara yoonu murit te doo fa fekk kenn ca jëwriñ ya mu bàyyi ko ci loxo yi Cheikh Souhaïbou Mbacké moom moo tax ñu fas yéene fee amal waxtaan woowu ñu bari ci sëti Serigne Souhaïbou yi ñu ngi ci jataay bii nii xam naa ci kanam danañ ñëw seeni tur ñoom ñëpp waxtaan wi nag sëriñ Sam Bousso inspecteur Serigne Sam Bousso moo ngi ci sama loxo ndeyjoor moom nekkut ku ñuy présenté ci ëtt yi wala ci jataay yoonu murid yaakaar naa ñëpp xam nañ ko te ràññee ko bu baax a baax ab liggéeyam ak taxawaayam ci yoon wi ci xam-xam ci jàngale ci yar waaye mën naa mënees naa wax rek ci réew mi yëpp sax ci ay taxawaayam incha allahu taala bu jëlee kàddu ba indi ab tënk ci jàng ak yar ci Sénégal su noppee suñu mbokk mu baax mii moom it di kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne xam nañ leen fii ci ëtt yoon wi ci xam-xam muy inspecteur Serigne Mouhamad Ngom moom it bu sëriñ Sam yeggalee ci exposé bi nga xam ne moom lañ njëkk a def ci lu jëm ci yar ak jàng bu noppee sëñ Mouhamad Ngom mii moom it dana ñëw ci tomb boobu waaye daal ñu xam ne rek tomb bi yëpp day delluwaat ci jàng ak yar ci yoonu murit waaye ci jàng ak yar yi Serigne Souhaïbou dana jaadu buñ nekkee ci ëtt bi ñu fàttali ko ñaanal ko suñu boroom yokk ay leeram mu doon koo xam ne mag ñi àndoon ak sëriñ bi am na fuñ ko tegoon te loolu bari na ay seede lool ndax taxawaayam bu rëy ci wetu sëriñ bi loolu benn rek benn seede rekk lañ ciy barkeeloo ca tuuti sax lañ ciy indi muy sëriñ Baay Buso dafa am merci bu martial maam Cheikh Ibrahima wax ca ci ay taxawaayam lu bari lu am solo loo xam ne waxtu nekk war nañ koy bàyyi xel war nañ koo dégg bu baax a baax ndax day taxawaay yu am solo yoo xam ne mat na ñu roy ko ci lool mat na ñu xam ko bu baax Sëriñ Moulay dafa bokk ca lam ko wax ne ko moom day jaayante na ak sëriñ bi bu yàgg di ko liggéeyal doon koo xam ne nag liggéey ba ci am xel la ca boole ak ñaw ak yew liggéey ba mu ko doon liggéeyal it da ci doon sàkku ngërëmam waaye doon koo xam ne bari na lool lum gàddul sëriñ bi ci ay joona waxoon ne xat baayaa cheikha xidman xaadiman fatinan yabgi rida wa anhu yaxmilul kulafa waaye mu am ni misaale Cheikh Ibrahima bi ñëwee ci Cheikhul Khadim misaal mi ci sëriñ Moulay Bousso joxe dafay nekk misaal mu rafet ndax nee na dafa mel ne sëriñ bi dafa amoon wurus woo xam ne dafa tasaaroo woon bi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee daf koo nas nas bu rafet jiital sëriñ bi ci kanam mu ne waafaahu is durruhu tamiinu muntashiran muntashirun fa ahkama nazma bi taqdimi muctarifa loolu nag di lu am solo muy taxawaay bu am solo mooy fésal ak liggéey bi mu liggéeyal sëriñ bi jiital ko yëmalewu ko dara mu wax ne dafa jihaad ci yoonu yàlla xeeñtu mboorum kilifaam nga ànd ak moom jëm ci ak jub te wàccul benn yoon yoon wi nga xam ne ci la jaar mu ne fillaahi jahada yaqfu ithra qaidihi ila alhuda wa anil minhaaji man xarafa mu ne moo tax sëriñ bi moo ko yéege ginnaaw bi mu ko yare loola da ci dañ ciy dégg yar mooy fondement mu yoon wi mooy defar balaa tarqiyaa am tarbiya day am nit ki bala ñu ko yéege ci suñ boroom dañ koy defar ba noppi moo tax tarbiya mooy jiitu tarqiya moo tax sëriñ mu lay waxoon ne raqaahu min baadi ma rabbaahu mutxifuhu bima bihi min miyaahi bi xarafa nee na da koo yar ba noppi doo koo yéege ki nga xam ne moo ko may la ko jàppandal la ko yóbbu ci la ko yeggale ci darajay mën a tànq ci ndoxum xëybu mooy xam xëybu kon loolu liñ ciy dégg rekk mooy taxawaay bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall taxaw na ko ci wetu sëriñ bi liggéeyal ko sëriñ bi yar ko defar ko yéege ko moo xam comme cër bi mu am da ko liggéey cër bi mu am dañ ko cee waajal loola koy dañ ciy dégg ne ab cër bala koo nit a am moom da koy bëgg fàggu ko waaye dañ koy teg ci yoon woo xam ne cër boobee waaye nag li sëñ mu lay teg ci melokaan yooyu nga xam ne waxal na ko ko da caa teg nag ay jëfam yoo xam ne bi mu demee ba yegg fi mu yegg am daraja ji mu am loolu lépp da ko wëlbatiwaat jëmale ko ci jariñ moo tax mu waxoon ne man li tariqati yusji nahwaha nafaran wa man yuniiru quluban xuffalan xulufaan day mel da ko doon jooy ci way wi ndax ginnaaw bi mu génnee àdduna mu ne anakan kan mooy màngati wommat ay mbooloo jëmale ko ci yoon wi nga xam ne kon mbooloo yi mu daan dugal ci yoon wi moom la sëriñ Mulaay di junju ci bayit wi di wax ne ana mooy leeralati ay xol yoo xam ne dafa tëju mu ko mu di ko leeral kon moom loolu ab liggéeyam la woon mooy di leeral xoli jaam yi di indi ay mbooloo di leen teg ci yoon wi nga xam ne yoonu sëriñ bi la ñu man caa jaare ba texe tey texe ëllëg muy muy waxaat ne ana kan mooy koo xam ne dafa sax ci di liggéeyal sëriñ bi di ci wut tuyaaba teg ay moroomam néewu ci doole kenn mënu ko ci mu ne waman li xidmati janbi cheikhi muhtasiban yataaduha waladal aqraani ma daxufa taxaw muy muy junj taxawaay yim amoon ci njaboot gi ak yim amoon ci ñi nga xam ne dañoo am aajo mu dañ daan dimbale daan leen taxawu ak ñi nga xam ne ay jirim lañ ak ñu néew doole mu leen daan taxawu mu ne man lil iyaali bu aydal xilli man li zawil xaajaati man lil yet ma baadu wa duafa yooyu day ay jëf ak i melokaan ak i jikko yoo xam ne dañ ko war a xam bu baax ndax jukko la yoo xam ne képp ku bëgg am daraja képp ku bëgg a am cër danga ko war a jéem a jikkowoo ay jëf la it yoo xam ne képp ku am cër danga ko war a jëfe kon loolu lenn la rekk ci seede yi nga xam ne mag ñi seedeeloon nañ ko kilifa gi di boroom ëtt bi muy Cheikh Ibrahima Fall waaye li ñu ci jukkee rek mooy baat xam ne tudd na ko mooy sëriñ bi da koo yar do yéegi yar nag mooy fondement waaye lislaam ci boppam kii ci boppam defar doomu aadama yi ñoo moo ñoo leen yëg moo leen yëkkati woon ndax suñu borom subhanahu wa taala fafilumihina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihim wa yuhim wa yuallimuhum alkitaba wa hikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wàcc yónni ko yi ngir mu jàngal leen waaye yar ndax tarbiya mooy defar bakkanu nit ki defar xolu nit ki ndax bakkan ak xol da ci am ay jàngoro yoo xam ne bu ci nekkee nit ki du mën a jege boroomam nit ki du mën a amub cër nit ki du mën a dund sax dund ku koy tax a texe ci àdduna mooy kon defar bakkan ba nga xam ne du rëy defar bakkan ba nga xam ne du bëgg àdduna defar bakkan ba nga bañ kenn waaye day am jikko yu rafet day toro day toroxlu day wàcce boppam day bëgg lu baax day bari yërmande yooyu yëpp ay ci def tax nit ki melowoo ko ci loolu mooy tax doomu aadama mat loolu mooy tax doomu aadama jege boroomam ndax dañuy wax te nit ki ay jikkoom gën a rafet ci lay gën a jege boroomam cër ñi ngi koy xamee ci nit ki ay jikkoom nit ki cër buñ ko mën a waxal te boo xoolee ay jikkoom jikkoom sellut bakkanam sellut ma nga ànd akuk rëy ma nga bari ay jàngoroy xol kookee cër bañ koy waxal dañ ko koy waxal waaye amu ca moo tax sëriñ bi ñim mu àndaloon lam jiitaloon ci ñoom mooy yar leen te loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam digaloon ndax da ko waxoon ne ko rabbi asxaabaka bil himmati kon lam ko digal mooy mu yar ñu àndaloon ci yit loolu feeñoon na ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi te yar boobu nga xam ne buñ ko waxee mooy jàngal nit ki xamal ko li mu war a xam dafa jumtukaay yi yar ko ndax nit ki faw mu xam liñ bëgg ci moom xam melokaan yiñ bëggul ci moom xam yoon wi mu war a jaar man caa jéem a tegu loola nag xamal ko ko mooy jàngal ko waaye yar ko mooy fexe nag ba mu di ko ba mu melowoo ko fexe ba mu di ko dundal fexe ba mu di ko jëm wax na ne loolu moo yàlla dama yónni ngir may melokaan yi ñu war a mel waaye xamal leen jëf yi nga xam ne war nañ ko li ñu war a séq ak seen boroom ñu mën koo sellal seen mbokk doomu aadama seen mbokki mbindeef ñu mën koo sellal mën koo rafetal xam loolu moo fi indi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na it innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq waxoon na diine dëgg dëgg dëgg mooy ay jikko jikko yu rafet mooy diine wax ne nit ki lu mu bari jikko yu rafet foo xam ne ay jaamu yàlla du ko fa àggale kon ngir wax wane ne jikko yooyu defar ko moo indi woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bi mu ñëwee yitteem yépp mooy defar doomu aadama yi moo tax ba mu wootee ñi ànd ak moom mu xamal leen ne képp koo xam ne danga bëgg li ma bëgg na jaar ci samay tànk ñu ànd araadama aradna fal yasir bi sayrina kon jàngale ak yare Sëriñ dañoo xamal ne li li ko tax a jóg mooy defare defare nag xamal nit ki da caa bokk moo taxoon mu teel ñoo xamal ne xam-xam bu àndut ak jëf amul njariñ mu ngi mel ni garab goo xam ne amul meññan moo tax sëriñ bi digle fu bare bare ay wax ne moom ab liggéeyam mi ngi ko teg ci xamal nit ki ak defar ay jikkoom wax ne jihaad bi muy jihaad mi ngi ko teg ci xam-xam ak ragal yàlla inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahidu moo tax mu wax ne nit ki na xamlu te buy xamlu na xamlu te yàlla rekk tax te la muy xamlu na ko jëfe na ko xamlu ngir jëfe ko kon sëriñ bi dafa ñëw jàngal ne la xewoon jamonoom nga xam ne nit ñi dañ daan wut xam-xam ngir xam-xam di ko puukarewoo di ko damoo di ci wut addu moom daa ñëw ne xam ne xam-xam bi nga xam ne jegeelu la sa borom xam-xam boobu amul njariñ li am solo mooy nit ki di xam loo xam jéem a xam loo xam ne da koy jëfe na yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale saxaaba yi nga xam ne saxaaba yi nekkuñu woon di jàng xam-xam di dem waaye dañ doon jàng di jëfe lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na leen ko dañ koy daal di jëfe doog a jàng leneen loolu nag la Sëriñ delloo siwaat xam ne ab yaram moom da koo teg ci nit ki xam waaye bu xamee ba noppi muy jëfe muy jëfe lam xam moo taxoon mu waxoon ne yéen ñëpp na ngeen lu te yàlla tax bañ a xam lu ngir rawante bañ a xam lu ngir pooga réew waxoon ne seenu seen seen seenu taar mi ngi ci xam ak jëfe xam-xam ak boole ci ay teggin muy ñett yoo xam ne yu mat a bàyyi xel ndax sëriñ bi ab liggéeyam ab yaram dafa ko teg ci ay so ay ay wos yoo xam ne benn buñ ci bàyyi rek day am manque-manque bu mag a mag a mag mooy xam-xam ak jëf ak i teggin waaw jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimu falaazimuhu tukfa ankumul wadab kon li ñu war a xam mooy nit ki lu mu mën a xam lu mu bari bari bari bu ko jëfewut doo am njariñ nit ki lu muy jëfewul ci ay teggin doo am njariñ moo tax yar nit ki xam waaye fexe ba am melokaan woo xam ne dina ami teggin diggam ak boroomam waaye dina mën a ami teggin diggam ak mbindéef yi lu tax kenn mënta tàgg tàggale xam ne dañ leen a bëgg tàggale bëgg a wax ne sëriñ moo tax sëriñ di wax ne di ñu wattandikuloo ñi la bëgg a wax ne dangay jëf rek waaye bul jéem a xam mu ne mën man nahaakumoo an it taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantabi lu mu baax baax boo ko tegee ci ak xam day gën a baax jëf lu mu baax baax boo ko tegee ci xam day day gën a baax ndax xam dalay dimbale nga xam yoon wi nga war a jaar xam ni ngay amee ngërëmul sa boroom ci yoon wa nga xam ne moo gën a gàtt moo xam gën a gën a gaaw moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ab yaram mu teg ko ci defar ay jikko yar nit ki ci ay teggin waaye na xamal ko fa mu war a jaar moo tax buñ gisee dëkk yi mu sanc yépp daan fa yar ñi mu àndal daleen daan xamal waaye da leen daan tàggat ci waaye da daan defar seeni ruux defar seeni xol defar seeni bakkan ñuy mën a sàmm seeni cër ndax xam-xam bu la jegeelu suñu boroom Sëñ Tuubaa nee na ci ak réer la lay yóbbu al ilmu in lam yufdi saxsan lil lil huda fa innahu yajuruhu ila rada dalay yóbbu ci alkande su fekkee ne yóbbu la ci ak njub lii tax mu yóbbu la ci ak njub nag mooy nga di ko jëfe te boo koy jëfe boole ci ay ay teggin kon jamono juñ mën a toll dañoo war a xam ne sëriñ bi moom daf ñoo bëgg ñu texe àdduna texe àllaax texe nag xam ak jëfe ak sellal moo koy may nit bu boobaa bu amee ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla loolu moo koy moo koy jariñ ëllëg kon moo tax mu mag mu tegoon leen ci yoonu teggin muy loo xam ne waxtu wu nekk dañ ko war a teg ci suñ suñ jëm caa jëm ko xëntewoo jëm ko bàyyi xel ndax loolu ci la suñu njariñul tey nekk ci la suñu njariñul ëllëg nekk loola it suñu mag ñi ay exemple lañ ci yàlla yàlla taas ci seen barke teg ñu ci seen yoon ñuy xeeñ ci seen mbor kon nañ taxawee noonu sëñ ñi. naaw loolu ngi nuyu ñi ci jataay bi di nuyu kilifa yi di nuyu soxna si defe naa bu ñu tegee nuyoo ko mën a jàllale ci kilifa yépp di nuyu sëñ Saam di suñu wëllëre di suñu collègue di suñu sëriñ di rafetlu waxtaan wi. temps bi xat na ñu jéem ci dugg waaye dugg bi daanaka euh, sëñ Saam euh, buntu booy jaare sax euh, daanaka da naan bàyyi ko ci ndax wax ji tënk na ko leeral ko nu am solo noo xamante ni bu dee luñ mën a jariñoo rek mën naa ni doyoon na sëkk ci dayob xam-xam ci lislaam ak wàccuwaayu xam-xam tamit ci yoonu murit loolu sax waxin la waaye bu nee lislaam rek yoonu murit mooy lislaam lislaam mooy yoonu murit lañ cay def rek xëy na tuuti commentaire lay doon ndax euh, ci nit rek buñ ko jëlee nga xamante ni du ko ci lislaam ngir nit mën a jariñu doon lim doon doon nit rek xam-xam daf ci am solo xam-xam mooy mooy tax nit nite ndax ñiy gëstu ci xel di gëstu ci nature humaine ñëpp dañoo dëppoo ci ni kiy gane àdduna màndargay bàyyi ma la ëndaale ci ay gëstu yu wér ci ay psychologue yoo ay scientifique lañ la koy def nit mooy lu ñuy def ci moom lañuy def ci moom nag mooy xam-xam bañ koy yenkeewal te xam-xam du rekk lu ñuy def cim xel waaye day doon lu ñuy def cim xel doon lu ñuy def ci xol waaye doon lu ñuy def ci ay cër loolu moo tax mu dugg ci xaaj yooyu ci jàngal ak yar laata ngaa yéege bu ñëwee ci diine lislaam wàccuwaayu xam-xam la koy gën a indi mooy di tax doomu aadama yàlla defal ko tedd nga ba mu kawee ku dul moom ci mbindeef yi ndax buñ demee ci alxuraanul karim dinañ gis ni suñ borom subxanahu wa taala ba mu nammee jiital aadama aleyhi salaam yëkkati ko ci kaw malaaka yi bañ amee lu ñu cay gaaral tuuti ci ni kii kat boo ko yóbboo ci suuf dina fa tuur deret dina fa yàqu yàlla ba muy layal daf leen wax ni man xam naa lu ngeen xamul inni a'lamu ma la ta'lamun te ci suñ borom di borom kattan di borom coobare bu ko neexoon jëf rek ci coobareen ak kattan day mel ni kilifa bu ko neexee jëf te sax du layal jëfam waaye ja foofa dafa layal jëfam te lam koy layala mooy xam-xam bu mu am moom subhaanahu wa nga xam ni kon solos xam-xam ci ni mooy leeral jëf foofa mën nañ ko fa tàmbalee ci ni kuy jëf bu ñu la laajee sa jëf ji lu ko waral amoo benn lay wu dul dellu ci xam-xam waaye ba mu ko defee diirit ngir wane dëggug yëkkati gam ko yëkkati da leen boole def ay laaj laaj yooya ba mu ko laajee ñoom malaaka ya seenu ñàkk xam lañu fésal subhaanaka laa xilma lanaa illaa maa innaka antal alimul hakim nga xam ni kon ñoom bañ ñàkkee xam rekk lañ daal nangoo topp ñul ba mu bëggee nag yëkkati aadama moom da koo xamal moom waa allama aadama al asmaa kullaha nga xamante ni xam-xam bi mu ko xamal ba liñ koy laaj mu man koo tontu loola mooy layal la mu yëkkati ko ci yeneen naw lay jaamam yooyu nga xam ni kon xam-xam buñ nee tedd nga ci nit cosaan la ci luñ def ci biiram ci xam la la bu buñ demee diir nag ba lislaam ji ñu yor nga xamante ni lislaam mooy ca cosaan rekk ba euh, sunu maam aadama ñëwee alayhi lam la indi lislaam la ñu koy jokkalante waaye bi mu ñëwee ba ci yonent bi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam tamit gis nañ ni lañ njëkk a wax ci moom ci xam-xam lay dellu ndax ba jibril alayhi salaam ñëwee ci moom ci xaaru xiraa fekk yàgg na fay beru di fiikar ak di teewlu màgg borom bi ba mu ñëwee lam ko njëkk wax mooy iqra mooy jàngal buñ seetloo tamit li gën a tedd ci cadeau bu suñ borom jox wàcce fii ci suñ kawnu bi ab téere la defe naa ne ku seeti nit jël kado di ko jox jëlub céere jox ko kooku donc daf la woo ci xam-xam kon ñu xam ni àdduna ak doomu aadama lim am yàlla jox ko ci li gën a tedd alxuraanul karim la di di téere kon foofu rekk dañ ciy tënke wàccuwaay bu xam-xam am ci kaw suuf ak wàccuwaay boo xamante ni am na ko ci ci ci nit rek waaye wàccuwaay bu xam-xam am ci lislaam li ci sëñ am saam indi ci ay lu koy layal defe naa loolu doy naa sëkk doyloo ci ay delluwaay waaye suñ sëriñ tamit Cheikhul Xadim ku ne xam na ni bim ñëwee duggul ci yoon wu bees sosul lu bees li yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam indi woon moom la ñëw doon ko yeesalaat nga xam ni da nga naan moom Cheikhul Khadim buñ doon xam-xam jëmm la da naan moom moo incarné jëmm jooju mooy jëmmi xam-xam ndax xam-xam buñ ko tegoon fan ngay tàmbalee mooy nga gane environnement xam-xam wala nga jàng xam-xam wala nga jàngale xam-xam wala nga bind ci xam-xam nga xamante ni fànn goo jël ci xam-xam rek dangay fekk sëñ bi mat fa sëkk lam doon ci lu wàll googu ndax bu doon ndono da ngay xam ni dafa ñëw fekk askan woo xamante ni dañoo ràññeeku woon ci jàng ak jàngale ak xam-xam ak yàpp kon mu fekk environnement bi bu doon lu donn rekk am na ci ndono lu doy sëkk waaye bu dee dem di gëstu laxas di ko wuti tamit ku dem ci irwa nadim wala nga dem ci téereb sëriñ basiiru minanul baaxil xadim di nga xam ni ginnaaw jagle yim am ci suñu borom subhaanahu wa taala ku laxasaayu la woon dem di sàkk kon jóg di ko wuti bu doon moo koy mayeet def na ci loo xamante ni doy na royukaay kum mën doon waaye bu dee jëmm am ko tamit ci histoire amuñ kuñ mën a indi lu ku bind lu ñuy sax gam-gam lekk li sëriñ bi bind kon nga xam ni kon lam ca peeg looloo day wane taxawaayam ci xam-xam buñ ñëwee ci wàllu di ko jàngale dëkkam boo jël daara la këram joo jël daara la bu dee ci wàllu production wax naa ko léegi mooy dundal xam-xam loolu nim ci taxawee liñ cërale moom imaam Ghazali ci Ihya Ulumuddin ci ni ku doon dundal xam-xam la defe naa sëñ bi ni dundalewaat xam-xam ci téere yoo xamante ne demoon na ba daanaka kenn jàngatu ko mu indi ko ci anam goo xamante ne gën naa jàppandi li ñuy wax actualisation indi ko ci anam bu méngoog jamono ba nit ñi mën ko jàngaat téere yoo xamante ni tur yi sax nit ñi fàtte woon nañ ko mu indiwaat ko ba nit ñi mën ko jàngaat man ci jariñuwaat ba tey jii dëkkam bi nekk mën naa ne la capitale du savoir kon ñu xam ne wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murit moom di ko waxtaane mën nañ fi fanaan buñ ko doon indi ba ci boo jëloon kenn koo jël ci yoonu murit rek bu dee ci ay njabootam seen dund gépp xam-xam la bu dee ci seex si ñoom ñëpp seen dund xam-xam la boo demee ci àll yi dëkk yuñ sànc rek boo demee daara ngay gis ak euh, jaamukaay jaamukaayu yàlla loolu kon day misaal ni yoonu murit yoonu xam-xam la ci diir bu gàtt rek jamono yi weesu réew mi ñu ngi doon laaj ñu defal leen recensement li di daara ci dëkk yëpp biñ ñëwee ba Touba li ñu recensé ci daara te xam nañ ni liñ ci recensé la des bu ëpp nit bari na lool àgg nañ ci lu mat ñaari yi daara yoo xamante ne recensé nañ ko ci département Mbacké rek nga xamante ni beneen département boo dem ngir ñu am téeméeri daal daara day jafe. waaye boo ñëwee fii lu mat ñaari yi daara recensé nañ ko loolu nag di tegtale ni wàccuwaay boo xamante ni xam-xam am na ko ci lislaam waaye xam-xam am na ko ci yoonu murit koo xam ne ab dëkkam sax daara la ko def loolu defe naa fa la euh, xam-xam euh, mën a yem li ci des nag xam naa mooy ci ki tax ñu teewe jataay bi muy Cheikh Sonhibou ñuy ñaan suñu boroom euh, yokk leeram taas ñu ci barkeem xam naa ci ñaareelu passage kàddu gi dinañ ci gën a dugg waaye kooku tamit defe naa ñépp xamandoo nañ melokaanam ci xam-xam day mel ni dundam gépp moom xam-xam la ci nu mu ko jàngalee ak lu mel ci moom man bi defee jataay bi waxtaan nag man ngir ma ñëw teewe ko daf ma yóbbu fu sori ndax bi ma nekkee université eh, taqoo bu ma taqoo woon ak téereem boobu daa tax ba samay xarit dañ maa tudde woon sony bu junior am na ay at yoo xamante ni sony bu junior ndax sama delluwaay yépp moom la woon boobu luñ wax man leen sëñ sony bu nee na lii te ndaw ñu bari xam naa leen ñoo xamante ni ay murit lañ waaye li leen dëlloo delloosiwaat ci yenn pas-pas yu sell yi waat leen ci góor tey rëb seen émission boobu euh, ci la bokk kon ñu ngi santaat bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax ceew bi nu teew tey gi wax dëgg yàlla xam naa du ñu mën a wax ndax dañuy lonk lonkal ndax ab taalibe dañuy moom bu toogee fa kanam kilifaam day mel na xam-xamam yépp sëñ bi da ko laltaay toog ca moo tax daanaka du mën wax dara waaye dañoo den nag koo xam ne nag moom lañ bëgg a xamle bu noppee cant yépp moo ko joxe mu Cheikh Moussa Fall mii toog den man di doom ci Cheikh Modou Fadil Fall ak Soxna Ndeye Fall moom suñu Abdoulaye Fall Ndar wàll gi nga doon waxtaane nag Cheikh Modou Fadil moom képp ku meññ ngay góor bala ngaa xàmmee rek am na fu mu la làq foo xam ne boo fa jógee ca daal ya nga jóg boo jógee ca daara ji ba bindu téere indi ba mu jébbal ko Serigne Touba daf naa la neel mott ca tarbiya ga moom mii nag kon lanu bëgg bu noppee rek kàddu yi moon ko jottali ci soxna moom yi waaye wàll gi ngeen doon waxtaane ba tey rek defe naa moom lim ci def ci kër Cheikh Modou Falil Fall yaakaar naa ne bari na ñu yor alxuraan ci yaakaar naa ne ak buñ fa wala yëg buñ fa mën moom mii de bind na ab kaamil boo xam ne bi bu ñu topp ba mat sëkk la mu séddale ko nag doomi sëñ Moodu Falil Fall yi kenn ku ne naa nga mi isib loo xam ne ci benn bés lañ xëy bind kenn bind kaamil bi mu noppi ju def ko lépp lépp dafa jaay ji dafa lépp mu séddale leen ko kenn bu nekk am dog boo xam ne boo xëyee bala ngaa def dara dog bi ngay jàng ki nga xam ne moo ca gën nawe bu ñaan xat bu mu desee moom moo koy jàng mu jeex lépp ci benn bis lañ koy def moom bi moo ko bind waaye nag dama bëgg a joxe ak cant koo xam ne dama yónnee wu ma dama yóbbanti bu jëm Cheikh Abdoulaye Mbacke noonu koy sant baax njaboot gi di ko ñaan sama borom yàlla nga dolli ay leeram baax tax ci barkeem ndax li wala fi wax naan lii lépp yow a lépp Cheikh Abdoulaye Mbacké ñoo ngi ñaan sama borom yàlla daal njaboot bi mu fi bàyyi sama borom yàlla teg ci loxoom di gën a barke lépp nag te wala leen ndax moom day moo yóbbee que Cheikh Ibrahima Fall mbégte boo xam ne mbégte bu réy réy la mbégte mi day mel na ne maam Cheikh Anta ba xaali bi Moustapha jóge ci ci géej gi ci liggéey ba te ñëw ñu dafa ko ngan foofa keroog maam Cheikh Anta mbégte bu rëy la mbégte lool waaye lu mu bëggoon nag ci baatin bi mu ñëwee que Cheikh Fall bég nañ mbir moom ci baatin bég nañ ko ci saa ndax daa lëkkale que Cheikh Fall yépp daanaka jël ma di ko lim ndax xam ngeen ko waaye keroog ci saayir Cheikh Boolu Falilu Fall li mu njëkk def ci mbégte dongay daara yi newoon ca daara yëpp ak murit tarbiya yenn yi ak mag yeen yëpp dan na noonu woo ay dënd ndax ku sab sanga gana si danga am mbégte moo xam ne boo mën a fecc sax feccal keroog yaa xam naa fii ay dënd waa mos lañu woo boo daara yépp ñu ñëw jeew te loola ak cant la boo xam ne dafa bàyyi ko ci Cheikh Abdal Bakk kon nag koy ñaan tàmbali yàlla dolli ndimbalam eh, te taas ñu ci barkeem waaye nag ki mu indil nag nekkati yoo am soxna maam jaaratullaahi la nu ndax li tax boo indil na ko doomi Cheikh Souhaïbou Mbacké nga xam ne kon Baay Faal yi moom dañoo waroon di sukk di raam saa yuñ xëyee di def loola ñu di ko woowee soxna Mominatou Mbacké moom Cheikh Souhaïbou Mbacké ba leen déedéet déedéet ma wax soxna Mominatou Faal man Baay Faal la kon kooku bu nu amaatee bis bu mel ne bisu tey bii tey dana mel ne mbégte ba nu amoon keroog ba mu wàcc ci guddi keroog ak mbégte ba nu fanaanoon ndax liggéey bii ngeen di liggéey ak waxtaan yi ngeen di waxtaane ci ngeen di waxtaane da ngeen a ci xam-xam rek waaye laa biiru doomu aadama ak yoru doomu aadama yaakaar na Cheikh Souhaïbou Mbacké def naa kenn jotu ko ci woon yërmaane doomu aadama ak yërmaane mala ak yërmaane lépp lu ma di doon mm. akub yar mm. ak dégg ndigal yaakaar naa ne bu ñu ci lislaam la jëkk mooy fonk sa kilifa man lay waxtaan bii nu doon waxtaane bu yokkul dong gis naa mu tracé benn bâtiment ci biir kër gi foo fetool ak gamat di ma man mii yoroon naa ko doon naa taxawu liggéey bay mu guddee ñaar fukki mètre yaatu mètre fukki mètre juróom ñu daf koy njëkk daf ko lépp def fondation bi ba fondation bi nopp bi nga xam ne dana xëy xëy rek tabax bi di mu jóg sëñ Abdoulaye Mbacke yenn si fa ba muy dem mu ne ko naa jaar ci liggéey bu xool ba mu ko xoolee ba sëñ bu gunge ko mu wàññeeku sëñ bi damaa daal di wóolu mu ne moom kat loolee ngeen defoon soo ba ngeen dem dindi ko woon set wecc sëñ bi naa ko dindi yaakaar naa ne loolu ku dubbee tiif tiif yaakaar naa ne na nag mbooloo mu toll na nag nga def ko ba xale yeggale rek ca des sa kilifa ñëw ne la na lépp dañ lépp dañ fi saa si yaakaar naa ne loolu ku jàpp tiif def dafa mën ñu ngi nuyu mbokk yi taalibe yi te di leen siyaare di am mbégte ci jéema joxe ay kàddu yoo xam ne lool la Seex Muhammadu Muntaxa ak a ñaan suñu borom dolli ko fee bàyyi mu yéene ci woon maamam bi mu def ci lu kawe njortam ni ki ñoom noonu lañ koy ñaanale xalifa xam fi mu teg soxna si moo tax ñu koy defal te loolu dafa am solo dégg naa ci yéen mag ñi ngeen seen Baay Faal dafa nekk njaareem ay soxna ñenn ci soxna kii raxas bopp yi ñëw bi mu ñëwee sëñ Ablaye toogee wër ko di wax nees tuuti oto suñu moto bi da corde Moustapha Fall muy leen daw leen moto bi tàngo ñu daw bi mu ñëwee ba sëñ mu laaj bëgg nekk ba fa newoon ni ko daa mel ne damaa gisoon ay soxna yu doogoon fii léegi kooku wax ko li xew

waaye dëggal sa ak kilifa boo tax fu mu a nekk ci at fu mas a nekk buñ daa defal xel koom néeg ñaari néeg la ñuy defal ngelaw li lu lu lu lu ëpp sa mbir la nit nag boo àndee moom saa yu àggee nga geneen àgg goo xam ne bokkut ak àgg gi nga àggoon nga ñaar ndax genn gi day dëggal genn gi ba noppi genn gi di yàq genn gi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin soxna si. ñun ñii nga xam ne ñun ñun nga jabootee xam nañ li nga daj xam nañ fi nga jaar waaye nag xam nañ lim la juróom yow boo santee ñun boo santee benn ñun sant nañ fukk ndax dëgg la soo muñul woon toppoo ndigal ñun ñi duñ fi topp duñ fi toog ndax def def bu ne nag am na ci àdduna waaye def def bu ne am na ba noppi dañ waaye bii dafa am ba noppi am kon loolu lu sant la ñi nga xam ni ñoom la bokk Cheikh Cheikh Souhaïbou ñu ngi nii ak soxna si ko li ëpp solo jigéen nag daf ko daal muy yaatu ak mën a joxe ñam loolu daf koo daal moo tax ñun de amuñ sa fay amuñu sa am na loo xam ne de suñ ko mënoon suñ ko ñemee woon wax ñeme nañ ko sax waaye dañuy bañ ngir topp ñu ñu taxaw fii kon wax waaye nag xam lépp nit boo ko waxee boo ko boo ko waxee lu ko dal la jàpp te kon lii may wax turu mën naa ko wax ci turu soxna sax mën naa ko turu sëñ Fallou Fallou sëñ Fallou de bu toogoon fii dana wax lëpp li ma wax bu dee wax la mbaa bu dee jëf la bàyyi bi yi moom dong bu toogoon fii mën naa wax lëpp li ma wax ñu toog fee kenn ku ci ku ci nekk noonu suñ Moussa Cheikh mi na ma ay seet yu rafet ci moom léegi yoo xam ni lam yi sax mën na ko bañ tudd ci kaw waaye alhamdulilahi rabbil alamin sëñ bi bëgg nañ bu baax waaw soxna si day feeñal mbégteem rek moo tax mu jox ma kàddoom hmm. waaye yéen mënoon ngeen a wax li ngeen di wax dem te kenn bi teg benn baat ndax li ngeen di def moom ngeen koy defal di ñaan suñu borom nag bis bu ñu àgg bis bu ñu dëgmal nii yàlla nañ ci àgg ak jàmm di bisub sëriñ Sonia boo nga xam ne juróomi fan ci weeru koor la feeñoon te it ci weeru koor la dellu woon ci boromam léppam di weeru koor kon sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax ni wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaa xayra baytin waata بالبيت والمدالي أحضر وساهم وقريبا إلى حدالي يا خير بيت آدم

sunu kilifa yu baax yi nekk ci jotaay bi yépp sunu bàjjan yi yaakaar naa du jar di waaye ñu jaarale seenu nuyoo ñoom ci ki nga xam ne moo nu tax a jóg ñu fekk si ko fii tey di soxna Moominatu bintu Cheikh xam naa suñu aboo dafa sàkk woon rek ñu jot li ay kàddu yu cant ci turu daairatu daaira bi nga xam ne moo lëkkale sëti Sëriñ Souhaïbou yi ñu baaxoo di taxawal yu mel nii ngir cër yi nga xam ne njabootuk Sëriñ bu gi am nañ ko ci liggéey bi ñu jox leen ko ba mat sëkk loolu moo waral lii yaakaar naa ne tàmbale woon nañ ko ay at ba tey jii ñu ñëw war koo defe fii di sant bu baax a baax a baax ndax ñoom dañoo am cër bu rëy rëy boo xam ne seen cër bu bopp la du cër sax bu ñu leen di jox bu ñu moom la eh, dafa am ku ma nettali ne sëriñ Abdul Ahad nu ko yàlla dolli ngërëm ak leer bi mu nekkee bukki barga dafa am bis soxna moomi moom Seexul Xadim ak soxna mbenn gaa bu ñëw fa ci ak ngoon sànni suuf bi ñëwee mu dalal leen ñu fanaan bi mu xëyee ba julli fajar ba noppi dafa daal di wax ne man kat dama am ay gan te bëgg yéen waa dëkk bépp ngeen jàppale ma ci lu ma leen terale bu ma kenn jox ginaar nag ku mën a joxe am xar na ko joxe ku ko mënut na seet ku mu bokkal ñu fexe ba lijjanti am xar joxe nee na ñëpp daal ci dem mu ne leen nag fexe leen ba balaa yor-yor bi na lépp teew biñ demee ba dajale ko mu bari lool mu ñëw xool si ko bu ko xoolee ba noppi ne leen tubaarkàlla lii baax na waaye nañ ma jëndali ay nag ñaari nag ak ku gileem ñu dolli ko ci am ku ñuy wax bay Modou Gueye Baye Modou gay ku jege la woon ne ko sëriñ bi kat dangaa xër waaye lii doy na ndax ñoom ñaar rekk lañ te ku ne kenn la àndal sëriñ bi ne ko déedéet duma ma yem ci lii ndax bu fi sëñ Modou Moustapha woon tey ak sëñ Fallou du ma yem ci lii te bu ma leen xàmmee xàmmee gorewuma kon nag loolu mooy dëgg-dëgg li ñu war a jàpp ci ñoom ñii suñu Saliou Touré mas sama nettali ne ma mas naa laaj soxna benn gaabu ne ko waaye yéen nu ngeen demee ak seen càmmiñ yi <coughs> mu ne ko ah soxlawuñu leen ci dara daane ko xam nga ne moos bu du woon ak fa ñu sëñ bi yóbbu te yóbbuwu leen fa lii mel ne lu ñu ñàkk ci ab cër duñ ko mën a muñ kon ndax xam nga ne xam xam nañ ne ñoom li ëpp ci taalibe yi siyaare si di defi daayira dañ leen di taggi ay e xilaafa ak yooyu moom seen yoon néew ci dañ leen ci tegg ñiy jébbalu dañ leen di tegg ñiy joxe dañ leen di taggi loolu nag faw Sëñ Tuubaa wutalal leen ko loo xam ne moo leen koy fàttaloo moo tax ñu mat a bàyyi xel lañ ak di wut Sëñ Tuubaa ci ñoom ndax dañ koy jege lool dañuy jege Sëñ Tuubaa lool boo gisee mboolem doomi Sëriñ Tuubaa yi fi nekkoon nekkal ko fi lu bari luñ daa sàkku si ci ñoom dañ lay yebal ci njabootuk Sëriñ Tuubaa gu jigéen gi lool la lool looloo ko waral ñoom dañuy jege seen seen sëriñ bi dañuy jege sëriñ bi lool moo tax lu mel nii wóor na ma ne dana neex sëriñ Souhaïbou waaye dana neex Sëriñ Tuubaa itam kon euh, sëñ Abo lii lu am solo la lu rëy la itam lu mat di def la ndax ngërëmul sëñ Suwaybu bi rek lañuy ñuy sàkku te it naatable wu ma ne mën na ci am kon ñu ngi jottali ak cant bu baax ci soxna si dégg nañ kàddu yi ñu fi wax te lépp di dëgg ndax ñi ko wax li ñu wax xam nañ ko ñenn ñi dañ ko jonjoo dund ko lépp fekk leen fi ñenn ñi it bu ñu ko fekkewuti dégg nañu ko te lañu dégg déggit lépp dëgg la loolu nag siggil nañu sagu nañu ci nit ñi nga xam ne ñooy sag njaboot ndax euh, nit dana sagoo kilifaam waaye kilifa it dana sagoo njabootam kon nag ñu ngi sagu bu baax a baax ci sa taxawaay bu rafet fii ci kër seex Ibrahima Fall gi nga xam ne euh, li li ñu fi naw te di ko yittewoo mooy ak taalibe rek ak rafetal leneen lu leen waaye mën a wan yaakaaruma ne danañ ko gis sax ba di ba ba ba di ko yittewoo wala ñu di ko naw kon nag loolu nga fi wane ba tax mu rëy ci ñoom ba ñu waxee waxee ko nii ñu ko waxee loolu ñun ñii sag njaboot siggi nañ ci lool te saggu nañ ci itam te it nattebluwu ma ne mbégum sëriñ bi lay doon di nuyu mbokki taalibe murit yëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi seex Muhammadul Muntaxa ñu fi nekkal seexul xadim nga xam ni lépp lu biir lu xew ci biir yoon wi ku fa teew te bokk ci njabootu sëriñ Touba rekk moom nga fa wuutu moom nga fa teewal. nuyu nuyu bu baax nag di jiital ci nuyoo bi sunu doom yi sëriñ yi teew jarul lim buñ ci tuddee soxna moom yi mi nga xam ne moo waral bis bi ak magam yi ko fi fekk si ak rakkam yi dafay daal di doy ñu nuyu itam sunu doom yi fi nekk yépp di nuyu it sëriñ Fallou Fall mi nekk fii nekkal fi sëñ Modou Aminta nu ñëw ci kër gi tey ngir di fi def waajtaayu màggalu sunu sëriñ ba di Cheikh Souhaïbou nu bég lool nag mbég mu rëy ndax li nu bégee mooy tey jii kër sëriñ tuubaa ñoo ñëw ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla defit nu xam ci lu bari ci diggante yi mën nanoo yam rek ci ci kër gii nu nekk tey muy kër sëñ Moodu Aminta digganteem ak njabootu suñ Tuubaa gépp rawatina ci Cheikh Abdou Lahad bi nga xam ni moo fi indi woon soxna moom mi mii tey ba lii am fi moom it bi mu ko fi indee nun seere dañoo wax ni ba ca gën na ko mbokk seede nun xam nañ ni li ko Cheikh Abdoul Ahad indee woon fii matal na ko sëkk ndax sëriñ bi bi mu ko jëlee muy doomam mu indi ko ci barab bi itam teewutoon nag lim koy jur jur ak li muy bokk bokk ci sëriñ Touba dafa bëggoon mu sàkku fi liggéeyal fi yàlla ak sëriñ Touba ba tax na ndogu yi Baay Faal yi def tey seede laa ci yow mii ma àndal tey jii di Ahmadou naa seede eh, sa waajur ñëw na fii ba tey Cheikh Abdoul Ahad yebal ko fi ci loo xam ne sëñ Maodo Aminta sax du ko yëg jël ay teraanga yu bari jox ko ko ni ko boo demee jox ko moom yi te ni ko liggéeyu Cheikh Ibra Fall boobee bu ko ca kenn man li muy bokk bokk ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Abdou daana def loolu loolu nag booba da ko doon woon yoon wi ak jëmbat ko ca loola lépp nag sàmm na ko ci lu nu leer ba lii ak si ak si ak si tey kon buñ fi teewee bokk ci njabootu Sëriñ Abdou Lahad Sëriñ Souhaïbou bu yarnu war na noo mën a seede lii ci kanam ñëpp ñu xam ko xam ne li ko fi waajuram indee woon daal matal na ko sëkk loolu mooy lii tey nu santit nag bu baax nag ñi fi teew ñëpp ndax képp ku fi teew rek noonu nga fi teewal ndax bis bi ñuy waajal amunu lu may moom muy seex Sohaybu yàlla defit moom am na lu mu bindoon ci loxoom loo xam ni bu ma ko waxee rek doy na ci diggante Seex Ibra ak Sëñ Tuubaa te moom moo ko bindoon ci loxol boppam gàmmaat boobu ci këram ba mu ko liggéeyloo ba noppi dafa am benn kayit bu mu bindoon di seereel cant ña ko doon def lam ca waxoon mooy Cheikh Ibra dey yàlla dafa def sëñ Tuubaa xamaloon ko ni ko sunu boroom gërëm na la yónnent bi salaatu alayhi wa gërëm na la man ci sama bopp gërëm naa la bul defati dara bul liggéeyal ci kenn yàlla def ba loolu amee nag Cheikh Ibra yaram wa xaw a sutaati sëñ bi sàkk ay ndaw ni leen dem leen seetali ma Ibra Fall moom yaram moom woowee dara méttiwu ko lu may liggéeyal ma bañ jógee bay dem di ko seeti mu ne leen bu ngeen demee ne leen Ibra Fall na ma wutal sondeel su ma liggéeyee la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biñ ci Cheikh Ibra seetsi ko wax ko yónnent bi sëriñ bi yónnee ci seetsi ko mu ne lu leen jox ñu ni ko ah lii de la ñu waxoon woon dara mu ne ah lam leen jox moom ngeen gisul li may faj ci seen bët yi la ko def ñu ñu ni ko sëriñ bi nag nee na nga ko sondeel sum liggéeyee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon nag bu ngeen demee nee leen ko gannaaw moo wàccu ci digganteem ak yónnente bi du ma wàcc sama diggante ak moom loola moo tax murit du wàcc taalibe du wàcc Baay Faal du wàcc liggéey boobu moo fi nekk ba nga ni si ñu mën koo seedee nga xam ne lépp day yokk waaye dara du ci dellu ginnaaw kon nag jataay bi xat na te it yi bari na moo tax may ubbi nii rek ngir di ñaan eh, yaweeku dellu ndax wàccaay yi waaye ñu ngi seedeel mbooleem ku fi teew rek ni sag cant ci ci ci ci njabootu suñ Tuubaa gi la nekk lépp képp ku fi teew ngir jëmmi soxna moom yi rek loo ci def rek nun ñii di seeni càmmiñ nun ngeen ko defal te lu ngeen defal nag suñ Tuubaa ngeen ko defal nu sant it bokki Baay Faal yi nga xam ne fi fële soxna moom yi nekk cër bi ñu ko jox ñun xam nañ ko ndax bis bi mu ñëwee ci kër gi ba tey jii noonu noo ngi ñëw fi ci kër gi di ko fi seet si wàccuwaay bi ñu ko fi jox ak liñ jàpp ci moom ngir jëmmi sëñ ca sëñ Modou Aminta ba agsi ci sëñ Fallou mi fi nekk ak njaboot gépp ak taalibe yépp loolu xam nañ ko te luñ jàpp ci moom jëf ko ci ci sëñ Tuubaa lañ ko jëf kon nag ñu ngi leen di beral suñu cantuk bopp goo xam ne kii am na tàmbali waaye amutub yamukaay ci jàpp gi ak ci suturaal gi ak ci téye gi ngir jëmbi sëñ Tuubaa loolu mën nañ koo seede fii di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ci barkeb Seexul Xadim yàlla faj ajo yi di ñaan bis bi ñuy dëgmal muy bisub Seex Sohayb boobu taxawaay yuñ ci def yëpp yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf.